baara ausbillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ñu tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin Lou'Bess TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar kenn ku ci ne si santam di ziar képp koo xam ne mu ngi seetaan euh, TV bi di leen di leen ziar baax a baax a baax a baax. Seydi Laay dëkk bokk ci membre génération xarañ mën naa bokk ci fondateur génération man la Aïssatou Niang jógee nekk suñu vice président. man la Yoro Xarañ ñu gën ma si Yoro Sarr bëri Yoro Xarañ may parce que man moom bon Modou mooy sama mbër quoi mooy sama champion. Abdou Diop trésorier génération xarañ national. man la maa ko jiite euh, depuis 2010 ba léegi. waaw xarañ famille ba ma fay bokk du tey yàgg na bu maa ngi gën nekk xale léegi foog naa def naa fa 15 ans léegi waaw ba ma fay bokk nag boobu nit ñi bëri woon ñuy rampe ba heure bii li ma motivé mooy dama bëgg Modou ba pare ma gis ay nit yu am Pastef nekk fa ay mag yoo xamante ne gis naa ay jikko yu ma doy ci ñoom daal waaw loolu ma motivé ba ma bokk. génération xarañ ñu ngi ko créé. septembre 2008. génération xarañ moom ñoo ko créé wax dëgg yàlla yàgg na trop bi ñu koy créé nag yaakaar naa su ma juumul ay 2008 la côté yooyu benn soxna su ñuy wax dadaa ak ku fi nekkoon ku doon wax Karim Ndiaye yaakaar naa ni ñooñu ñooy fondateur bi 2008 ak léegi nag wax dëgg yàlla yàgg na yàggul te yaakaar naa boobu moodu mi ngi soog a dugg ci làmb ci lan xool xam ne kii daal jàmbaar la. ku am fulla am fayda ci li muy def dadaa am initiative boobu ñu dama ko bëgg a taxawalal fan si club biñ si waxtaanee wax dëgg yàlla tamit ci lan dem ba ci kër moo Mourou toog waxtaan ak moom ci lan taxawal génération xarañ. avant 2008 dañ daan tase di supporter Modou ñuy dem école 8 ou école 10 fay entraîner. xarañ family euh, mu ngi débuté ci fans club la woon pour di jàppale Modou Lo sunu mbër ñuy jógee Gambie. di duy ay bis di ñëw di ko seetaan si foofu la affaire bi commencé. li ñu gën a frappé ci mooy bi ñu duggee xarañ famille ba léegi sos ko mu nekk mbër bu am jom am fulla am fayda xam nga yëg aussi euh, xarañ famille et génération xarañ comme si nu mu ko defee ci bépp plateau boo xamante ne nekk na fa bu ne génération xarañ xarañ famille la ci teg bon loolu vraiment nit bu ñu deful dara tamit yëg moo ëpp fay lépp daal vraiment loolu moo ñu gën a marqué si moom am fulla am fayda surtout dama wax ne bu doon ne du jëmm la man loolu laa def ruu gi muy social bi surtout ndax amaane bu doon bëre bëre kepp yem ci rek dañuy mu day am combat ñu salti set daay dem ñëw ñibbi toogaat waaye man loolu mooy li ma si gën a motiver social bi ndax social bi comme li may wax rek dama naan leen yaakaar naa yaakaar naa di ko wax ne leen muudu am nga famille de am nga famille de sang mais famille de cœur bi génération xarañ nga ndax comme loolu ngay wax social bi dañ naan lee benn slogan lan am muy képp koo xamante ni am nga xewu xewu bànneex jàppal ne génération xarañ la tiis jàppal ne yaa ngi waa génération xarañ la ndax loolu moo koy dundal te loolu mooy tax ñu xam ne ñun kat lii nu bëgg bëgg-bëgglu ñu ko dañ ko bëgg di si demlante di si dikkilante ndax loolu moo war ànd bi gën a neex ànd beet gën a yàgg te yaakaar naa bon nga wax ba tey 2000 ba tey 15 15 ans du 15 jours du mois waa xam nga làmb day jeex te li ci des yëpp ah, mbër mi mën naa bàyyi Moodu moo ñu boole mais ñun ñëpp benn lañ tey jii man mën naa wax ne aw ma xarit feneen fu dul xarañ famille wala génération xarañ. dañ njëkk a dagg licence Gambie licence promoteur tëgg fa drapeau Modou Lo 2014 waaw bi ñu tëggee làmb ji amoon na réussit tamit ñu xam ne lii. bon porte la pour lu liggéey loo xam ne day am ci keesu fans club bi ci lan demaat ba ci biir ci Covid bi parce que dañ daan def marmite du cœur yi ñu daan def chaque weeru koor di ci invité Modou muy ñëw ñu def marmite du cœur yi bon marmi du cœur yi xam nga bi Covid bi ñëwee kenn dajalootul mbooloo mi te tàmm nañ ko nit ñi tàmm nañ ko ci ñun ci la affaire sociale commencé nag dugg suñu bopp ñu commencé yaatal branche boobu tamit ci leen créé Xereñ Charity Foundation maanaam fondation la quoi. boo xam ne ni pour charité la pour def social social boobu nag dafa yaatu parce que ñu ngi commencé premièrement si daara yi doon yóbbu ay lekk di ko jox daara yi am na daara yoo xam ne tamit yóbbu nañ fa ay zinc yi daara ñu yóbbu fa ay ciment xam naa di dinañ ko gën a yaatal ci côté boobu noonu ñu yaatal ko tamit waaw foofu lañ commencé daal tas ko def pàcc yooyu yëpp muy xereñ fa kii nu tëddati xereñ charity foundation bi ak xereñ wrestling school euh, tamit boobu écurie la tamit ñu créé écurie boo xam ne nii tamit am nañ si ay lutteurs yu mag moom tamit def ko genre école comme xereñ euh, wrestling school maanaam genre école de lutte la quoi boobu tamit créé woon nañ ko muy doonaat beneen branche tamit ci biir structure bi. ay nit ñu farlu nit ñoo xam ne daan am lu bëgg am ambition ba nga xam ne tey jii. lii leen bëgg a atteindre ndax ñun dañ daan wax ñu ak Modou Ba roi ñii naan mën a nekk ñii nii manul nekk ñu ñu gëm ko rek chaque année bu dul année weeru koor bu ñëwee ñu organiser def ni waaw ñu organiser def ni ànd ceeg ànd ceeg gars yi loolu moo ñuy may ñuy am ay activités yoo xam ni tout le temps ak ay manifestations yoo xam ni dinañ ko mën a organiser tout le temps ñuy mën di gise di daje di def ay réunion bureau xanaa bu ñu demul kër Pafal tey ñu ngi sama kër wala kër prési wala ñu koy defee fii ci ci Lou'Bess TV loolu mooy ñuy tax tout le temps ñuy mën a continuer ba tey ba tey ñu nekk en 2024. waaw action yi moom yaakaar naa ni loolu moo ñu ci bàyyi ba léegi wax dëgg yàlla ndax euh, bu fekkee dafa am benn mouvement boo xamante ni dan dan débuté ci zéro tàmbali ci dara yàlla dogal tey ñu dem ba dimbali ay nit. ba nit ñooñu di ci gis seen bopp di dimbale ñeneen loolu sant yàlla la ndax boo nee génération xarañ tey ñu ngi tabax ay daara di defar ay jàkk macha allah nga gis ci biir génération xarañ am ci ay élèves yoo xam ne ni tey ñu ngi doon jàng seen jàng dem na ba nar a yàqu génération xarañ jàppale leen ba tey ji ñoom it ñu nekkaat ay kilifa loolu lañ ci sant yàlla nga gis tey génération xarañ kenn ku ci nekk dem ba yàlla dogal mënatul wax dëgg yàlla génération xarañ volontaire jàppale la ba nga delluwaat sa sant tamit loolu tamit sant yàlla bu baax a baax a baax li ci nekk li ñuy dimbalante moom mënuñu ko wax ci émission wax dëgg yàlla. xarañ famille génération xarañ amul différence parce que ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu nekk xarañ famille rek ñoo nekk génération xarañ pour moi benn la bon di leen sax ñaanal bu baax a baax parce que ñoom heure bu ñu ñëwee fii nii ay mbooloo la ñuy ñëwee xam nga ñu génn seen ay génn ay xam nga fu nekk bàyyi duñ nelaw duñ def dara bon rien que pour ñun rek dañuy soutenir si lépp duñu xiif duñu mar xam nga di leen sant bu baax a baax di jiital ci sant gi président Modou Sarr ak président Pape li ñu gën a marqué si moom mooy day koo xamante ne bii day nekk nit koo xamante ne bii lu muy def rek da si ànd ak bëgg-bëgg te moom lépp loo xam da koy wut si bëgg ba dafay jeex te en en même temps discipline bi ak yëg gi ak it safoo gi nga xamante ne bii surtout moo ñu ko safoo. Modou daf ñu boole mais dafa mel ni Modou sax boolewuñu parce que chaque jour ñun ñooy gisante ñooy demalante ñooy noonu la demee. tey dina def na nga xam ne tey jii nii bu combat amee ñàkk am ku ci feebar dinañ la nemmeeku ku ci am lu la dal sa location matul dinañ xool lu luñ ci man jël suñu doole ñu def ko bu ko manul ñu dem force mbër mu ñëw def ko. waaw man moom wax dëgg yàlla bu dëggee dëgg li ma gën a marqué ci Modou mooy loo ko gëj a gis gëj a gis soo ko gisee dina laaj koo xamante ni que yow xalaatoo woon ni moom xelam mi ngi ci wallaahi alazim te leneen li ma ci a marqué tamit en tant que mbër koo xamante ni ki sport moo leen boole muy mbër. bu ngeen toogee mu lay wax nii la diw mi ndax mi ngi gëstu diineem man loolu daf ma yàgg jaaxal ci Modou su ngeen toogee dina ne ma oustaz ndax moom daanaka oustaz yi moom loolu la may wax oustaz xale yi yaa ngi leen di soriñ seen wàllu diine te loolu li ma lay wax nii du léegi waaw bu yàgg fu mu musee jotee fu mu musee am jotaay lu mu gàtt gàtt gàtt dina ne ma oustaz ma ne ko nangam mu ni ma ñii mbaa ñu ngi gëstu seen wàllu diine yàlla dogal ci biir génération xarañ buñ daan ñëw buñ dajee dañuy def ay thème thèmes yi yenn saa yi ñu wax ci wàllu julli ku mënul julli nan lay jullee ak ki nga xamante ni kii tey mi ngi nekk ak ay waajuram te nekkin bi rafetul nan la mën a def ba nekkin ak ay nekkinam ak ay waajuram rafet loolu lépp dafa am ci biir génération xarañ ki nga xamante ni kii tey mi ngi ñëw biir génération xarañ daan naan sàngara wala muy toox yàmba wala muy def ne ko sudul noonu ñu dem ba génn ko ci loolu te moom moo te moom moodu moomu ci boppam di la soññ loolu loolu sant yàlla la. waaw loolu relation mën naa ni frère la ak frère. parce que moom euh, jàppe woonu ay fans yi yoo xam ne dañ koy supporter après mu xam nga ku nekk dem dafa am euh, lien bu nu boolee boo xam ne nii euh, sa mbokk rek nga koy def mu yëg Gambien yi trop a commencé ci benn fans boo xam ne nii Tidiane mbay lañ koy wax gaañu woon bi mu gaañoo après bi mu ko yëgee rek dafa ñëw jaale si ko mu doon action bu rëy si Gambien yi ñun tamit loolu gën noo motiver ñu gën a taxaw mais yemu ca comme que dund ak dee ñoo bokk toujours day am ay moor am ay kii mais loolu daf ko continuer di def saa yu nu amee safaan mu ñëw suñu amee tamit lu neex mu ñëw saa yu nu ko soxlaa tamit buñ ko waxee mu ñëw mu yëg nu lool du wax mukk ba fàtte xereñ famille bon lien boobu moom moo nu boole ba nga xam ni bon mu da ngay gis sax da ngay dem ba xëy na ay activité wala yeneen bëgg la décourager nga bàyyi mais saa yoo ko gisee wala nga dégg am na combat rek da ngay takkuwaat nekkaat si ginnaawam wuti parce que xam nga ku ne xam na ni làmb toujours da ngay gañe léeg-léeg mbaañu ñu gañe la ànd na noog moom am ànd na noog moom ñàkk. Modou dafa nekk mbër boo xamante ni du xeeb doomu aadama xam nga ku nekk daf koy jël su suñ fu mën di tase si àdduna xam na ma dina jaar sama tur directement. même bu fekkee benn yoon la mu mës gis te noonu la mel ak ñëpp aussi loolu xam nga soo amee sa sa sa supporter parce que moom ay naataango mbërëm ñoo fi nekk te du ko def fu la gis dina la yëg fu mu toog si télé plateau lu mu rëy rëy wala lu mu métti di dina tudd loolu vraiment fierté lay doon quoi. am maanaam mën noo def erreur waaye seen i du bari ndax comme ni mu ne si làmb ji amaan léeg-léeg nga koy tooñ si làmb naan ko lii bandigee wala lii nii yaa mais yaakaar naa boo gisee wala nga toog ak moom benn une heure de temps si ngay gën a xam ne Modou mii li ñu ko doon wax wala lii lépp rek de benn moment rek lay doon mais bu jeexee jeex na ndax doo ko fekk fenn ba ne ah Modou kat lim sol waru koo sol wala nii mu taxawee waru koo tax wala nii mu waxee waru koo waxee loolu moo ñu gën a marqué ci moom. muy daara ji am na loo xam ne soxla na ko tey jii lu mu mënti def dinañ sóor daara yi bu dee dañuy jënd paquet suukar yóbbu fa dinañ ko def. nonga daara yi bu dee ñaari tubéy la wala ñaari yére ñu jënd ko dem yóbbu ko koor bu jotee dinañ togg ay ndog sédd la yóbbu ci daara yóbbu si jàq ji téléphone sax boo ko amul ñoo xam ne yitte wala kii ñu def ko sa papa tey jii bu soxlaa dara ñun ñu mank ñu jëse suñu biir dem def ko bu laajee nag ñu médiatiser ko yëgal ko ñu médiatiser ko woo presse ñu def ko ñu xool nun ci taxawee sans dépenser nu mu aajowoo rek. làmbu day jeex ñun ñoo fi des te ay mag lañ dañuy jóge ci étape bi dem ci étape bi am na ñeneen ñuy ñëw ñoo xamante ne suñuy rakk lañ te dañu nekk ay exemple ñooñu buñ ñëwee xam ne lii du làmb kese kese kese kese parce que ñu ni neen ci suñu biir war nga nit bu feebaree te am ko mën nga koo dimbale wala nit ki soxla dara war nga koo mën a dimbale lépp la ñuy def ay social dañuy defar ay jàkka dañuy xool nit ñi feebar ñi ñu leen di dimbale dañuy dimbalante ci suñu biir daal affaire bi nekkul làmb kese dañuy dox ci social yu bëree bëri wi dul làmb ay marmi di kër yu bëree bëri daal. projet yi moom lenn la ndax génération xarañ bi ko créé dañu woon ñoom seen biir yàlla na yàlla def ñu dem ba jënd Senelec ñoom ñoo ko daan wax. génération xarañ nag boobu ba léegi ñu ngi ci projet yi moom mooy dem ba tabax loo xamante ni bii dinañ ni lii kat waa génération xarañ ñoo ko tabax. sunu relation ak moom bon yëg bi mu nu yëg moo nu gën a may cawarte moo nu gën a motiver parce que bu fekkoon dafa dafa respecté wul suñu relation moom wala mu jàppe nu yeneen jàppi kon bàyyi nañ ko wala xañ na dootul demeeti noonu. waaye boo gisee booba léegi ñu téye di ñëw lu mu am ñu bokk kook moom c'est parce que daf noo yëg yëg googu nag ñun xam nga gor boo ko terelee rek tënk nga ko loolu mooy mboole ak moom moo tax boobu ba léegi ñu ànd ak moom te incha allah dañu ñaan yàlla ànd ak moom ba koro muy tekki ngembam waaw li may wax xereñ famille nag mooy ñoom dañ leen di jaajëfal rek parce que ku ne xam ni Gambie ak dakaar c'est des kilomètres te jamono day toll foo xam ni naqari gis nga. combat bii xam ngeen ne ku ne xam ni fête fête de réveillon yi ñun ñëpp ay commerçant la waaye dañ tëj suñuy ay boutique njaay moom rëccunu ñu ñëw parce que rus nan muy bëre nu gis moo waral ñun ñu ñëw kon dañ leen di jaajëfal di leen wax ni nan góor góor ñu jàpp foofu rek xañ na comme ni nu am yàlla may na nañu xelu ñu créer ay entité yoo xam ne mu ngi ci biir euh, xereñ family muy ay wrestling school ay xereñ charity ay xereñ xereñ promotion yooyu yëpp yoo xam ne nii la xañ na bëgg nañ ko gën a yaatal te su suñu mbër amee temps dinañ gën a toog waxtaan ak moom mu xool moom tamit li mu ci dugale loxoom ba nga xam ni dina doon loo xam ne xale yi dinañ ci mën noom tamit di gis seen bopp. yëg-yëg bi rek ak fulla ak fayda ndax nit su la yëgee rek nga yëg mais ku la yëgul daf laa noppal wax dëgg yàlla am na fulla am na fayda te bu heure julli jotee moom mu ngi ci ñu nit bu jotee ñu ngi ci lu manti def dañ kay bàyyi te ñun ñëpp ay père de famille la ay responsable la loolu loolu loolu moo tax suñu ànd ak Modou mën a continuer ba tey ji ndax gisuñu ko muy wàccee tubay gisuñu ko muy watoo noonu gisuñu ko muy waxe noonu ndax ñun buñ xasee toog kenn ku ci ne xam nga ni boo toogee sa njaboot am na yoo ko def kon buñ toogee comportement boobu ñu yor moom la ñuy yor feneen yamul rek si làmb kese xam nga parce que tamit euh, ñun mun nañ ko mun ko seede am nañ nit sax koo xamante ni nekk na xareñ famille ñu mu am tawat am jàngoro ñu wax ko mu xar ci tàng mu faj ko ba mu wér ba tey mu si jàmm jóge na tamit aussi dakaar ba Gambie ñëw jàllee koo xamante ne ku bokk si ñun benn ci mooy ki ma sol ni muy madame Seck mu ñëw def fees fees moo ko yëkkati woon pourtant mais dafa pare rek def directement seen ko dem jaale ko ak euh, tiijaan mbay ak euh, ñeneen xam nga te pourtant am na ay mbokk yu mbërëm yoo xamante ne ñu ngi fi duñu tudd turu kenn ñun ñoo nekk noo Gàmbi mais seen mbër yi duñ def loolu te nag wax dëgg neex yàlla nit su lay sonn di dopp di dox ay kilomètres heure boo amee combat ngir yow xam nga lenn rek la mën am si yow muy nga yëg ko te loolu lañ am si mbër ba wax dëgg neex yàlla mun xam nga lépp lu mën di xew bu ñu doon des benn nit sax dinañ dañ ko dagg dagg suñu liggéey ñëw ñëw teewal ko. yëg bi mu ñu yëg rek respecté ñu bëgg ñu moo def ñoo yëg bëgg ñu respecté ñu fu mu toog dañuy tudd day yëkkati tànkam di ñëw ba Gàmbi di ñu oo téléphone di ñu nemmeeku te loolu yombut yëg-yëg boobu rek moo tax ñu topp ci ba léegi tey loolu moo ñu gën a marqué ci mbiram. di ko ñaanal bonne continuation xam nga di di di ko ñaanal jàmm moo xam fi mu bëgg egg si làmb yàlla ko fa yàlla eggale mu dem ba bëre ba bàyyi roi des arènes xam ah, nga jox ko ay rakam comme ni mu ko waxee aussi di di ñaanal waa génération xarañ voilà di leen sant di leen gërëm vraiment ñoom sant bi am na commencement mais amul fu mu yem parce que gis nañ coono yi bu ñu ñëwee ñëpp bàyyi seen liggéey bàyyi seen lépp te loolu yombul parce que mbooloo euh, nga yor ay plus de cinquante et quelques nga ñëw ñu gérer la bi yor benn li sax yombul wax ma mbooloo benn kanam bu ñaaw wala leneen si ñoom di ñaan génération xarañ tamit ñoo xam liñ bëgg yàlla sunu borom bi defal leen ko jigéen ñi fa des te borom kër yàlla may borom kër góor ñi fa nekk te amuñu soxna yàlla may may leen ko di ñaanal xarañ famille tamit bu baax a baax a baax ak membre fans club boo xam ni yaa xam foo mënti jóge muy xarañ moo ñu boole ànd dooleel xarañ ak ku mu mënti doon ñu ngi leen di ñaanal ñoo xam ne ñu yàlla borom bi defal leen ko ñaanal yàlla tegaat leen ci jàmm ndax ñoom ay kilomètres kilomètres lan daw ñëw am fii ñetti jours ñii nekk ay responsable ñii nekk ay père fa famille bàyyi seen soxna bàyyi seeni i doom tëj seen i boutique tëj seen i place ñëw kon ñooñu mbër mi sax mënu leen mënul mënul mënu leen fay kon ñu ngi koy rafetlu di leen jaajëfal bu baax a baax di am mbégte ak contentement bu baax a baax Modou desalatuñu dara maach sant nañ ko gërëm nañ ko amul amuñu fayam ndax fuñ ko xaar rek passé na foofu di ko sant di ko gërëm kontaan nañ bu baax a baax xanaa di sant ñi nga xamante ni bi tey ñu ngi def ay déplacement jóge ci réew yu bari te wuute lool lool lool te yàlla dogal bu ñëwee waa génération xarañ ñoo leen di dalal ñoo leen di dalal yor seen lépp ba keroog ñuy ñibbi wax dëgg yàlla ci ndimbalal nag Modou Lo moo ci jiitu yaa ngi dégg ak président yi nga xamante ni bii tey ñoom ñëpp ñu ngi ci ñu ngi ci biir génération xarañ bi ku ci mel ni waa TMX club waa xarañ moo ñu boole ànd dooleel xarañ xarañ famille bi nga xamante ni bii Pape Diouf moo ko jiite nekk ca Gambie saa yu combat amee mu indi ñaari bis bis bu ne lu mu gàtt kaa dina def soixante et quelques personnes macha allah. message bi may bi may waxaat génération rek moom li ma wax daal mi moom moo ngi nii chaque jour li ma leen wax rek nit ki loo bëgg ba si rey sa temps rek daa am loo xamante ni da nga ko fee war a teg muy lan muy ñuy gën di yokkaat suñu jéego ak suñu bëgg-bëgg te xam ne ku bëgg dara faawit ngay def dara di wax ne man fépp fu ma fekk man. muy sama pan ak yooyu yëpp ndax yaakaar naa samay pan def na déplacement sax ñëw sama réunion génération wax dañ jógee ba Lambaay mais te rusuma ko tey jii laa gën ma wax su nekk dem leen ñu laaj ndax dafa dem ba xam ne man ñooñu sama famille kon loolu li may gën a yokk mooy ñu yokk suñu jéego gën a liggéeyaat bu baax a baax te xam ne moom ku bëgg dara faaw nga def dara beneen bet ki deen wax ne comme notre slogan yar ak teggin yar ak teggin saa su nekk suñ ci nekkee rek incha allah lu ñuy yóotu dinañ ko am te loolu dina gën a dimbali suñu mbër ci ndam yi nga xam ne koy wut ak yeneen ndam yoo xamante yeneen projet yoo xamante yi moo ngi ci kanam